monsieur le ministre dinaa dugg si sa ministère bi nga xam ne dafa def équité maanaam équité territoriale équité territoriale boobu nag man gisaguñ suñu bopp ñu département Mbacké ndax fi may wax yow Touba PDC numéro 1 amuñu ko PDC numéro 2 dañoo tëb kon jàpp naa ni il faut que ngeen def li nga xamante ni tey mooy programme bi ngeen def Promoville ak PDC bi ñu mën see gis suñu bopp département bi ndax boo jëlee dëkk mel ni Doyoli daaru xafoor dénday dëkk yooyu dafa nekk dëkk yu am solo ay dëkk kilifa diina yeen te fi may wax yow ni ba léegi nii amagul dara loo xamante ni lu bees la ci mbir moomu noonu li naan écoute sociale tamit dinaa si wax ndax ma jàpp naa ni ñun ay député lañ sëñ Touba jur suñu maam ki nga xam moo yore mbirum ceeb bi si màggalu Touba gi def na fa jëf ju ñaaw ndax mënuma concevoir ñu nekk ay député bokk ci njaboot gi ñuy jël député yoo xam ne Dakar lañ jox 5 tonnes ko 3 tonnes ñuy jox ñeent saako boobu ñuy wax du dëgg te boko woyé wooyee buma bu ma woowati Mansour Faye moo yëf yi kon il faut que loolu tamé ngeen wax ko ñun ñun malgré que mun bokkul parti ak yéen mais ci réew mi la bokk ndax milliards yooyu ñu leen jox ñun ñoko ko liggéey suñuy lemp la ndaj la pour jox leen ko en tout cas loolu il faut ñu xoolaat ko li nga xam ne moo laa lay wax aussi tamit ci mbir ben way bo xam wax na fi lo xamanteni il faut ñu léral ko ndax écoute social boobu dem na ba ci ben way taxaw ni fi barki dem ni dañu dañu jox député yi gerte mais kooku dafa saga député yi te moom mi ko wax jox nañ ko 500 tonnes gerte jox ko manam 3000 tonnes engrais jox ko ñebbe 600 tonnes walaru un milliard te kenn waxu ko te tey jii bi mu ñëwee war a dis discours Farba Ngom grâce moo tax woo moom deful discours bi mu waroon def kon kooku il faut que ñu wax ko xam ne équité sociale boobu noonu ñu leeral askan wi fan lañ sukkandiku ba loolu ñu ko jox jox ko ndax man mii di wax a yow bëgg na agrément am naa xaalis bëgg naa joxe jiw te mun maa joxe jiw ngeen yëkkati wala wutoon na ngeen jox ko pour mu joxe jiw kon il faut que ñu xoolaa loolu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk bu fekkee da ngaa dem laaj quatre quatre cent trente tonnes ministre agriculture nanguwu laa jox nga taxaw di ko xas kooku man teguñu ko fenn ndax ñun ay député lan waruñoo def pour santas waruñoo def pour kii te règlement intérieur article 101 dafa tere député ñu la jox marché daf ko tere ndax conflit d'intérêt la il faut que loolu tamit ñu mën ko xam mais koo xamante ni jànguloo ko xamuloo ko da nga yor maanaam sa kii yor sa grand bubu dem di xas ministre yi nga dem ngir leen santas ngir lan ñu jox la 500 gerte mais yow teguñu ko fenn 3 3000 tonnes ñebbe tey jii suba la ko yaa bay wax ni am na ba pare mi ngi mi ngi document yi il faut que ñu leeral askan wi xam ne li ngeen di yor affaire moomu ko réew mi ñoom ñoo ko bonne continuation yoon baa ngi noonu bul gestu te nanga nangoo liggéey tey di li ni te wax ak ñoom